Cheikh Tidiane Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ngay secrétaire général u béykat yi nekk ci bassin arachide ji campagne agricole atum 2024 bi lee nag budget bi mu mel ni euh, jóge na ci son ba ci cent vingt milliards euh, ci suñuy koppar bu ñu sukkandikoo rek ci élimaanu jëwriñ yi Ousmane Sonko ban jàngat nga ci am. waaw lu am solo lu am solo parce que cent milliards du dix millions du cent millions ay milliards la ay milliards wax dëgg yàlla. Euh, lu mën a euh, daf lu rëy rëy rëy la te yaakaar naa ne buñ ko sottee fi ñu ko war a sotti mu agsi fi mu war a agsi yaakaar naa ne dana nekk njëriñ pour baykat bi mhm. euh, dellu si na tamit ci li nga xamante ne moo jëm ci ressources yi ba ci moyens yi nga xamante ne teg nañ ko ci ne daal ñi nga xamante ne ñoom ñooy amalu ni mel maanaam ñoo koy pratiquer ñoom kese ñoo ci mën a daal bénéficier wu. waaw loolu moom yaakaar naa ne loolu moom mooy seen Euh, mbir mi nga xam ne moom waxoon nañ ko population bi newoon nañ leen bi ñëwee danañ am beneen doxalin bu nga xam ne du bokk doxalin bi doxalin bi ci nekkoon nag ñu ci bëri dañ nekkoon ne euh, dañ ñëwoon ne li ci bëree bëri bëri du accès si askan wi nga xam ne ñoo ko mën a jëriñoo donc ñoom ñu ne nag lépp day nga xam ne moom lañ dégagé bëgg nañ mu accès si biir askan wi looloo waral da nga maam lu ci bëree bari fi mu nekk nii ñu càmbar ko xool ko gis ne am na ay fànn yu nga xam ne buñ ñu ko utiliser mën na am dana agsi ci bay baykat yi euh, te ñoom ah, teg nañ ci lu nga xam ne nañ duñ ko caaxaane duñ ko foye yaakaar naa ne buñ ko tegee ci teggin woowu yaakaar naa ne mën na agsi ci baykat yi danga maam ñu jëriñoo ko pour ëllëg ak si biir muy doxali ne eh, économie bi mais muy doxalee noonu danga maam Euh, baykat yi ñu mën a soxla. Mhm. ci bor yi nga xamante ne amel nañ ko nag opérateurs yi euh, jëm ci campagne atum deux mille vingt et un deux mille vingt deux deux mille vingt trois mu mel ni di leen ko soldé ci euh, fukki fan ci weeru maa atum deux mille vingt quatre. waaw loolu ñoom wax nañ ko nee nañ ne boru mm, opérateurs yi dañ ko dañ mm, mm, ko soldé parce que opérateurs yi wax dëgg yàlla nekkoon na seen revendication yi gënoon na mag parce que amoon nañ yenn moment yoo xam ne sax nekkoon nañ jàqare si ñoom. parce que yoreel boor ñaari at ñetti at ñoo xam ne loo ko borom dégg maam mu leboon ko ci banque yi dégg nga banques yi di leen di teg ay agio maanaam leen di teg ay daan yoo xam ne dégg nga maam dafay métti ba nga xam ne léegi si biir bu ñu jotee seen xaaj liñ ciy génn mun day nekk ay pertement nekkoon na seen jaaxle mais bi biñ demee conseil interministériel ñoom nangu nañ ne ah, am na lu nga xam ne dinañ ko fay mais am na lu nga xam ne moom mënuñ koy fay mooy deux mille vingt trois deux mille vingt quatre parce que gis nañ ne koppar yaatu na et puis ni ko joxee yaatu na yaatu moo xam ne tey na seen xel ñu ne boobu moom danañ ko càmbar mais li nga xam ne dégg nga maam mooy quarante milliards yi nga xam ne yoroon nañ leen ko leen ko jox li ci des nag ñoom dañ ne woon ne amal nañ leen plus de cent milliards xam naa loolu nag moo bëri ba nga xam ne ñu ne loolu ñoom danañ ko gëstu xool ko càmbar ko ba xam niñ ci war a fay ak liñ ci war a fay. Hmm. opérateurs yi nag et quelque amoon loo xam ne vraiment dañ ci daan dimbalee état mais donc am nañ droit pour dégg nga maam bu ñu leen yore leen nañ leen fay. Mhm. ba jàngat nga am yi tamit ci euh, li ñu wax ne daañu euh, ciblé euh, ñi nga xamante ne rek ñoo jëm ci coopérative yi ngir distribution wu semence yi. waaw foofu moom am naa fi waroog ñoom tuuti parce que li problème bi mooy je pense que ne boo xamee nu monde rural bi tëddee da nga xam ne. Euh, coopérative yi amatuñ dégg nga maam booy bu doyo pour dégg nga ñu mën leen di jox jiw pour ñu mën koy séddale parce que coopérative yi fi nekk euh, nga xam ne ñoom représenté yu zéro virgule zéro zéro nangam pour cent pour producteurs yi mais coopérative yooyu aussi dañ dem ba nga xam ne seen man-man ak seen mataay dafa desoon ba béykat yu bëri génnoon ci léegi nag lii problème bi mooy boo bëgg a def coopérative je pense que ne loolu xajut fi mu nekk nii ci buntu nawet bii léegi nag problème bi mooy su nawet passé war nañ mën a def coopérative àll yu nga xam ne dañuy ciblé euh, zone yi nga xam ne zone yu bay la ñu oo dégg nga maam commune chaque commune ñu def fa benn coopérative bu boobaa dañuy jël autorité administrative bi mu convoqué ci zone bi nga xam ne moom la concerné lépp lu nga xam ne képp ku nga xam ne yow mbay soxal na la ñu oo ci benn place publique mbala ñu oo ci benn ndaje ñu toog ñu fal dégg nga maam li nga xam ne dégg nga maam mooy jiite coopérative bi ak lu koy toftal bu boobaa. danañ mën a am ñu inclusif bu boobaa danañ am lu représentatif te bu boobaa dina dégager aussi dégg nga maam population localité bi mais li ma gis nii bu ñu ko bëgg a def loolu mook sotteeg daf ci lay doon rek benn lay doon parce que fi mu nekk nii sax boo demee ci mondial bi fi mu nekk nii nit ñaa ngi profité pour daf seen i coopérative dana dem ba nga xam ne coopérative familial mooy am wala coopérative individuelle bu nga xam ne boromam day bind nu ko neexee rek dem uti ji këyit su boobaa aussi dafay complication. nga foog ni euh, càmbar euh, li nga xam te ne mooy distribution matériel yi daan na indi dara. waaw je pense que ne pour l' instant li gën a urgent mooy matériel bi nga xam ne depuis daaw euh, ba léegi joxe guñ ko yooyu fi mu nekk nii moo taxaw parce que nawet bii ñu toll nawetu daaw utiliser wuñ ko nawetu ren dégg nga maam bu ñu yéexee duñ ko utiliser te fi nekk nii li si ñëw dégg nga maam nekk njëriñu béykat yi yaakaar naa ne loolu la ñu war a. génne le plus tôt possible pour daf ko dañu maam à la disposition du monde rural am na petit matériel am na aussi le matériel loolu comme tracteurs yooyu je pense que ne yooyu war nañ gaaw le maximum possible pour daf le tout jéem a xool ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ñooñu dañ leen ko joxe dégg nga maam danañ ko mën a jëriñoo ñu jox leen ko li ci des nag mbiru càmbar ñoom moo nekk seen premier dégg nga maam démarche lépp lu nga xam ne nag yàlla euh, am nañ njort ne Euh, du dem mën la boog baaxul nañ ko tëralee war nañ ko càmbar ba xam li ci nekk bu nekkee ne lu nga xam ne lu ñuy yóbbu ci yoon ñu yóbbu ko ci yoon su nekkee ne lu ñuy defar ñu defar ko yaakaar naa loolu am solo lay <laughs> est-ce que nga foog ni euh, temps bi des ngir euh, taw gi tàmbali dinañ ci mën a rek doxal li nga xam te ne moo jëm ci wàllum distribution. waaw loolu de mënu may wax waroo waaye nag tiitaange la ci ñun ci ci ñun ñi nga xam ne au moins am nañ expérience. Mhm. ci doxalin monde rural parce que boo koy xool. at yi yëpp dañuy am retard dégg nga maam sur la distribution semence ak engrais loolu nag na daan dem ba nga xam ne sax dana daan am yenn commune rurale yu nga xam ne dañ daan am yoon dañuy mujj jaay seen engrais parce que duñ ko mën a yóbbu fi mu mën a yóbbu parce que oto yi duñ ko mën a yóbbu dañuy giroo donc ñoom bu ñu ba nga xam ne fi mu nekk nii li des bi presque bëreetul da nga maam ñu euh, bëgg a def renseignement si yenn entreprise xool euh, ne leen ne daf leen ko ci enveloppe ngeen yónnee ñu ko laaj leen ay question yu xam ne nañ bugg nañu xam ndax ñoom fay nañ impôt bëgg nañ xam ndax ñoom fay nañ caisse de sécurité sociale bëgg nañ xam caisse de prévoyance maladie bëgg nañ xam ndax ñoom am nañ garantie bancaire bëgg nañu xam ndax ñoom am nañ stock yu nga xam ne mu ngi sur place yooyu yëpp bu ñu leen bëgg a boole daf ko ci enveloppe yónnee leen ko ñu càmbar ko xool yi ci man a dem ak ñu mënta dem je pense que ne loolu rek d'abord c'est du temps boole ci nag boo demee ba nga xam ne dégg nga maam loolu am na nga xool ne nga maam nuñ koy transporter mbala nuñ koy solee parce que gerte gi bu nekkee ci place da nga ko def ci saako ñu xool ndax gerte gi baax na am ñu dafa ko étiquette indi ko ci àll bi dégg nga maam soo présenté commission yi commission yi war koy distribuer je pense que ne temps bi dana xaw a gàtt lool. alors nga foog ni mesure mhm. mesure yi nga xamante ni nag lu gën a gaawoon. Mhm. Hmm. ayca. waaw nañ gën a jéem a gaawantu daf de sort que. yenn yi suñ ko mën a ñu allégé ko ba nga xam ne dana gën a oyof ba déwén ak jàpp ñu am largement la temps càmbar yooyu yëpp jëm xool naka lañ koy doxee. xool naka lañ koy doxalee waaye mesures yi nga xamante ne daanaka fi mu toll nii gouvernement bi moom la jël nga foog dina indi rupture rek ci ni ñuy yoree campagne agricole bi. en tout cas bon je pense que ne euh, ñoom vraiment ak euh, nuñ nuñ nuñ bëggee yëf yi dox mooy ko yaakaar naa ne yéene bi rek moom am na solo. li ci des nag praticabilité bi am na ci lu nga xam ne buñ ko bëgg a def dañuy xaar ba li passé ñu xool da nga maam naka la ñuy amee temps nécessaire bi parce que diggante ak ak morom ka mun nga ci càmbar o ñi nga xam ne acteurs yi la ñuy concerné parce que dañuy wax ne booy defal nit ki te boobu mu koy def yëgu ko presque defaloo ko donc je pense que ne ñoom bu loolu passé ñu oo acteurs yëpp parce que am na ci acteurs yu nga xam ne xam nañ nu monde di doxee boo ak seen yi ñoom xam nañ da nga maam lu monde rural di doxee booleeg ñoom seen yéene buñ ko boolee yaakaar naa ne buñ ci toogee waxtaan mun nañu am ay résultats yoo nga xam ne peut-être donc fenn fu nga xam ne dégg nga ma am dana am mbocc mala dana am euh, lu nga xam ne du du du du du du du matadi du mat ni xam ne dégg boobaa mën nañ génne ay yu baax mais nii ma gis nii moom tëju si ay miir ak ay yéene yéene yi mën naay àgg waaye nag dafa rek du mën naa ñàkk àgg. très bien alors yan jafe-jafe ngeen di euh, jot a jànkuwanteel ci terrain bi jëm ci wàllu mbay mi. jafe-jafe yi daal mooy d' abord taw deuxièmement mooy euh, problème de semence semence nag moom yàgg nañ koy wax semence yi fi nekk mënatut a baax te baaxul parce que wax naa ko ci conseil bi naa leen ne semence yi ñuy wax ni baaxatul parce que lii problème bi mooy amul kenn ku nga xam ne fi mu nekk nii am nga abilité pour def semence parce que semence dafa am lu mu laaj da nga war a contractualiser da maam di jox baykat bi baykat bi di la delloo ci mais fi mu nekk nii ak avènement bi xew Euh, structure yi fi nekkoon di ko doon def dañ def dañ dañ nërmeelu nërmeelu dans la mesure état daf leen amaloon xaalis seen gestion baaxul dégg nga booleeg dégg nga maam bi chinois yi ñëwee ñoom dafa amoon lu ñu doon doxalee parce que jiw dañ ko naan di jënd plus cher dégg nga liy dem ci usine ñu jënd ko moins cher donc jiw bi doon tasaaro jiw yi da daan ànd benn ànd bu nga xam ne lépp doon àndandoor mais bi chinois yi ñëwee béykat yi nga xam ne ñoo doon delloo ci euh, seko yi pour dégg nga maam jiw yi mën a ànd nekk benn benn benn anam ñooñu dañu mujj dem jaaye ji ci chinois yi biñ jaay jee ci chinois yi ñeneen ñoo xam ne bokkuñ dégg nga maam ci coopérative yi si ñëw jaay ci chinois yi gerte yi jaxasoo ba nga xam ne loolu la ñuy wax tuufana loolu nag moom ci bëri ak gerte gu nga xam ne aussi fi nekk nii pratiquement boo koy xool yeesaluñ ko gerte gi dafa dee dee gu nga xam ne béykat yi léegi dañuy liggéey ba sonn bay bëgg dee duñ am rendement te damay wax ne sax gerte fi nekk nii béykat yi bu loon ngooñ konoon ba nañ parce que ñi ciy liggéey di liggéey dañuy perte li ci gën a bëri donc généralement je pense que ne foofu war nañ ko defaraat recapitalisation di capital semence yi loolu nag dafa amoon ay anam yoo xam ne waxoon nañ noonu lañ ko bëggoon a defee parce que ISRA am na lu mat fukki xeetu gerte yu nga xam ne fi mu nekk nii bu ci nekk danay génne trois tonnes à l'hectare ñu ne woon comme que dañ koy recapitaliser si méthode yu njëkk yi nga xam ne ñeenti at la ñu ne nañ ko def ci benn at ak genn wàll ci naka lañ koy doxalee. mooy irrigation def de sorte que danañ bay ñaari yoon ci noor bi ak benn nawet muy ñetti mbay ci benn at bi bu boobaa mun nañu def un an et demi cent cinquante mille tonnes yi nga xam ne tey jii moo nekk à la disposition des baykat bu boobaa nag ñu wesaare ko ci dégg ma maam gox goxaan yi nga xam ne ñooy bay gerte bu boobaa ñu am gerte de qualité parce que état damay wax ne kenn munu ko génne ci mbay mi parce que dafa am li ñuy wax quota sécuritaire bu nga xam ne état moo ko yore Euh, pré base ak base état moo ko war a defar. Mhm. lan ngeen paree nag li ci des ñu jox ko béykat yi ñu ful ko. loolu moo tax yëf yi dafa laaj ñu teeylu def ndànk ba jéggi lii ñuy jéggi parce que li ci des dafa bëritu boo léegi si biir ñun bu ñu toogee ñoom ak ñeneen ñi leen euh, concerné yaakaar naa ne mën nañ tëgg lu nga xam ne dina am solo. très bien ana ban message rek nga am looy lancé njiitu réew gi euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. li ma koy lancé daal mooy. Euh, comme li ma wax léegi yi defal nit ki te nit ki yëgu ko bala xamu ko presque defaloo ko li ma xam mooy suñ buggee dégg nga maam mbir mu dox nañ ci boole dégg nga maam les acteurs oote nag ay waxtaan yu bari yu yaatu yu nga xam ne parce que war nañ mën a def chaque trois mois état daje dégg nga maam béykat yi ñu xam évaluer dégg nga maam au niveau du ministère dañ daan def chaque quinze jours mais état dafa am période bu nga xam ne aussi dafa war a daje ak béykat yi xam évolution yi xam dégg nga maam directive yi nga xam ne moom lañ defoon ba xam dégg nga maam lan lañ soxla ak lan lañ soxloon bu boobaa dégg nga maam mu mën a dem ne daal euh, ndaje yi daal moom mun war na di mun a am à chaque moment dégg nga maam ñuy mën di xam situation nan la tëddee. Mm-hmm. Cheikh Tidiane Cissé jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay secrétaire général u béykat yi nekk ci bassin arachidier bi ñu ngi lay bu baax a baax. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup.